ci bisu yowmul jumaa al mubaarak di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko ay nangul ko mbooleem jullit ñi ci kaw suuf yàlla subhaanahu wa taala yombala ñu dégg alquran ak sunna ay wërsëgal ñu nangu ko taman ko jëfe incha allah seen mbokku Cheikh Cheikh la mooy delsiwaat ci eh, dars bi nga xam ne doon na ko amal ci yowmul jumaa bu ne لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشيخنا شعباني رحمه الله تعالى آه، دون ليتا كثير بي أقوال أئمة الأربعة من أبو حنيفة رحمه الله تعالى أك إمام مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله أك إمام الشافعي رحمه الله تعالى سنو درس بجك jëloon nañu lenn ci ay kàddu yoo xamante ni abu xanifa rahimahullahu taala wax na ko ak imaamu malik ci joxoñ buñ doon joxoñ ak di xamle ni ab jullit delluwaayu diineem li ci wér mooy li nekk ci alquran ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam سبرم خم خم ووتي اك واخو يالا لا يل تجادو موي ني واخ واتي واخو خم خم بابا سووتي ووتي اك بي صلى الله عليه واله وسلم تا واخ تي وير خم خم بابا ديس كو ورا تك تي سوف تا جيل واخو بي صلى الله عليه واله وسلم ني بغا جيل نك امام الشافعي رحمه الله تعالى nga xamanteni kenn la ci ñoom euh, ñi nga xamante ni ñooy al aymat al arbaa incha allahu taala ci moom lañ war a ñëw ci toxal ay kàddu yoo xamante ni li abu xanifa rahimahullahu taala wax ak imaamu malik rahimahumullah kàddu yu mel noonu rek léegi wax moom it pour ab jullit mën a xam bu baax bàyyi xel xam ni topploo wuñ ñu boroom xam-xam yi royloo wuñ ñu borom xam-xam yi waaye dañoo royloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nag pour ñu roy ko faaw ñu jàng ay waxam ba ndar képp ko xam lu nekk lam ca wax wala lu nekk lam ca jëfe wala lu nekk nam ca nam ko digle woon ñu wommatoon noonu ca loola لولا ترجع من قرمانة سنو برهم سبحانه وتعالى قال إن شاء الله أن يغيّم لأجتي آه، كلا نتل إمام الشافعي رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه والولاه بقي قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى وخم جدك وخنا لإمام الشافعي ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعزب عنه إمام الشافعي أن يعني أنا أمو الكل كو خمنتني أقول لسا قم قم باري باري لدوني دينا أم دينا أم لا دمي سنة معنى أم لا نياك خم تي أقول لسا قم قم باري باري دينا أم لو نياك خم تي سنة kon loolu li muy tegtale rek mooy ku xam lépp amul ku xam lépp amul waaye sunna da danga ci xam lii am lu la ci riir kon bis boo demee ba dajeeg la wér te la nga jàppoon wérul woon li yell te jaadu mooy nga bàyyi la nga jàppoon te topp la wér waaye nee na amul kenn koo xam lu dul ni léeg-léeg dana am ay sunna yu ko fàddu donte jàng na ko xam ko bu baax waye leg nga xelam fatu ba buñ ko bettoon laaj ko ko lam cey tontu du nek la nga xamanteni moy la la lol nak da fay wone ni euh liñu tuddi ak ma'sumiyya newul ci borom xam-xam yi ndax dañuy joom dañuy wuté ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci seeni wax leg leg donte seen way du wuté ak yenenbi waaye ñàkk a gis la wér moom moo koy faral di waral imaamu shafii rahimahullahu taala nee na fa mahma qultu min qawlin fu ma mën a waxe ay wax wax ju ma mën a wax man imaamu shafii aw asaltu min aslin fiihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala ma tëral ab réegal boo xamante ni ab qaacida usuuliya lay doon boo xam ne ci usuulu madhabu imaamu shafii da nekk te qaacida booba خلاف ما قلت آه، ووتك لا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم وخ دنت من إمام الشافعي من ماك وخ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا وخ جوير دي تاني وركو طب وركو جل وخ جوجة موي وخ ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم وهو قولي تنينا لولا موي وخم لولا موي لمتان بدي لني جفه موم لا تان غير جيفكو واي بو دي لو ني واخ موم لا تان غير واخ كون امام الشافعي رحمه الله تعالى كادو ني ني غو خامتيني غو دغور لا غو مو ديلو امه بي تي ناني ديلو تي القران اك سنه سيدنا صلى الله عليه وسلم امام الشافعي قال اجمع المسلمون على ان من استبان له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد nee na borom xam-xam yi xeet yi daje nañ ni képp koo xamante ni sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer na ci yow moo xam sunna qawliya wala fi'liya wala iqraariya sunna gum ci mën a doon boo xam leer na ci yow borom xam-xam yi ànd nañ daje ni daganatul ci kooka muy teg sunna soosa di jël waxi keneen di ko jëfandikoo waaye la ko war rek moom mooy mu teg waxu ñépp te jël sunna si bi sallallahu alayhi wa sa nga xamante ni leer na ko mu doxe noona wammatoo noona jaamoo noona moom imaamu Shaafi rahimahullahu taala nee na ida wajadtum fi kitaabi xilaafa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa quulu bi sunnati rasulillah nee na bu ngeen fekkatee ci sama téere muy téere yi mu moom imaam Shaafi lu wuute ak sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen wax la sunna wax mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa da'u ma qult ngeen bàyyi li nga xamante ni moom laa wax man imaam Shaafi'i wa fi riwaayat ne ñëw na ci beneen riwaay wax ni fattabi'uha na ngeen topp sunna sa si yonent bi sallallahu alayhi wala taltafitu ila qawli ahadin ginnaaw loola bu kenn ci yéen di gestooti di lañ bët ak a xool euh, ginnaaw bi mu xamee ni lii mooy sunna su bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kum doon waratoo gestu ay kàddoom waratoo gestu ay waxam waaye la nga war a def moom mooy wammatul sunu sang muhammadin sallallahu alayhi wa sallam topp ko moom imaam Shaafi rahimahullahu taala nee na ida saxa alxadiisu fa huwa madhabi سو حديث بيري لولا مموي سما يون لولا موي سما مذهب لولا مموي سما يون ويغا خن مملا تان دي جي دوخي اك دي جي افتا اك دي جي جامو سبحانه سبحانه وتعالى امام الشافعي رحمه الله تعالى لنا انتم اعلم بالحديث والرجال مني فاذا كنت الحديث صحيح فاعلموني به اي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان الصحيح إمام الشافعي أدون إمام أحمد رحمه الله نحن نكت يوم جانج سمرون نيكو يندي يين يغنا خم علم الرجال موي علم الحديث يين يكو غنا خم su fekkee ne am ngeen xadis bu wér boo xam ñun day jotaguñ ci فأعلموني به لنجن ميكو خيما أي شيء يكون كوفيا ما خم كيكو خمي كوفا ولا بصرة لدك ولا شام لدك ولا فم لدك تأدنا فم لدك تأدنا ما دام حديث بيرنا باي كوتي ينتي صلى الله عليه وسلم نينا فأعلموني نين خمل به تحدث به كن لولو دفنك لو خمنتني لما تباي خل لما مودي ndeke diine deesu ko taqlid dina ko andi ci kanam topp kenn rek lépp lu mu wax loola la lu mu waxut du loola diine doxewul noonu waaye diine ci képp ku mu mën a bàyyi ko ak fu mu mën dëkk ak ku mu a doon la ñuy xool ca la muy wax mooy ndax wax ji wér na bàyyi koo ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax jooju nag ngir ñu xam ne wér na faaw ñu dellu ci علم الحديث و علم الرجال فهو يدل واتي قست كباخ نيكو برام خامي جكي قستور بدل اللي غا خامتني موي حديث وير اك لي غا خامتني ويروت مام امام الشافعي رحمه الله تعالى نيل كل مساله صح فيها فيها القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهل النقل آه، بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي إمام الشافعي رحمه الله تعالى لنا سبن مسألة بوير واتي بخبر يعني يا بخبر بباي كوتي ينتبه صلى الله عليه وسلم ñu jëlé ko ci borom xam xam yi nga xam ñoy tukhal borom تخل xam yi xam-xamu sharia ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk loola ñu toxal wuuteeg la ma wax nee na fa ana raajiun anha man de dellu naa ginnaaw ca la ma nekkoon fi xayaati bu fekkee ne fekk na ba may dund day danaa def taraajux dellu ginnaaw ci sama wax ja waaye wammatul la borom xam-xam yi waxta mu nekk lu wér waaye wa baada mamaati ginnaaw sama faatoot su fekkee ni fekkuma fi تسمى وخروتي أك وخو ينتبه صلى الله عليه وسلم دلنا جناو تسمى وخجا نغن جيل وخجا وير بايكو تي بروم خم خمي ني نيتاليكو مو بايكو تي ينتبه صلى الله عليه وسلم مام امام الشافعي رحمه الله تعالى بتين اذا رايتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف فيه فاعلموا ان عقلي قد ذهب لأن سنين دمي بقسم ما يوخ وقت يو خمانتني دفا ويرتي يلنتني صلى الله عليه وآله وسلم ماي وقت نووتك موم تفك ما خمني لي دفا ووتك وقت يلنتني صلى الله عليه وسلم ماي وقت نووتك موم لأن سبابا لنين قمني سمام قلدمنا نكتو تيما تا نت نكسو أم قلم جوتي جوغي تيموم ديسو الورا سكن دي قوتي أي وخم ولا أي جفم كان إمام الشافعي رحمه الله تعالى من الله مم إمام الشافعي رحمه الله تعالى لنا كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني إمام الشافعي رحمه الله تعالى لنا بب حديث بوخا خمانت من النبي صلى الله عليه وسلم لبايكو نقول كموير نينا لولا ما سما واخ دونت ديغولن كو تي مان دونت ديغولن ma wax xadis boobu baa ma bind ko ci samay téere waaye wax ji wér na bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola mooy samay wax manit na ngeen sukkandiku ci loola loola imaamu Shaafi rahimahu taala nii la doon waxe ak ñi nga xamante ñoo sukkandiku ci mazhabu imaamu Shaafi di ca balloo xam-xam ak أي مسألة دينية ديتا جفن ديكو سين ديني ليلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آه، دينك وهي دينك كان أبو خمنتي تمت نيكو جيتو ولدي أبو حنيفة رحمه الله تعالى أك إمام مالك آه، رحمه الله تعالى يوم لن دين كان kon incha allah mu des nag Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom it mu bokk ci al aimatul arbaa moom it ku mel ni moom wax na wax ju mel ni lii nga xamante ni moom la ñu ko jiitu wax insha allahu taala ñu ngi ci ñëw moom imaamu Ahmad rahimahullahu taala moom moo ci mujj ci ñi nga xamante ni mooy al aimatul arbaa ndax ñi jiitu ñoom ñoo ko fi jiitu donte nag moom jàng na ci imaamu Shafii rahimahullahu taala imaamu Ahmad nag mazhabam mooy mazhab bi gën a jige sunna ci mboolem mazhab yi nga xamante ni jaar na fa waaye mazhab la boo xamante ni tamit dafa néew lool ay xiyaas ci ay masala ndax li ëpp moom imaamu Ahmad rahimahullah dafa ñëw fekk borom xam-xam yi ko jiitu woon jot nañoo dajale lu baree baree bare ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi mu ñëwee dafa sukkandiku rek ca seen wax yooyee génne ca la nga xamante ni moom mooy la wér néewal lool ay gis-gisin ak ay déggin yoo xamante ni yu bees lay doon moom imaamu Shafii rahimahullahu taala دان وحني لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا شافعيا ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ إمام شافعي أنا أقول إن تقليد تمن تقليد ما يدي توب نيت توب تقوى خمانتني دو جست دو دو لاج تدو قوة دمي دف نخلوير لاغوير وعي لب لوم دف رك nam ko defee noonu nga koy defee lépp lu mu wax rek nam ko waxee noonu nga koy waxee waaye nee na bu leen taqli di tamit jëf ju mel noonu bu leen ko def ci imaamu Malik wala imaamu Shafi wala imaamu imaamu Zaai wala imaamu Thawri nee na bu leen ko def ci ñoom wa xud min xaytu axadu nee na ngeen dem jële ji fa fa ñu jële ñoom te fan jële mooy alquran ak sunna ca la ñu jëlee li nga xamante ni moom mooy seen fa la ñu jëlee li nga xam ne moom mooy seeni gisin ci eh, mazhab yi nga xamante ni moom la ñu sampoon doon ci leerala diine ku mel ni imaamu Awzaa'i rahimahullahu taala moom it yoroon na ngir goo xamante ni yaatu la woon eh, doonte sunu gox yi bari wu fi eh, waaye borom ngir la moom it nee na ñëw na moom إمام أحمد لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد رجال فيه مخير إمام الشافعي علينا بول جلسة دين ديكو كوبي تكل تني وعيني نغي جل لغا خمتني مو بايكو تي صلى الله عليه وسلم أكي صحابة nanga jële sa diine fa nga xamante ni fa lañ jële seen diine te ñom fa ñu jële moy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaba mais ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nak ak ay sahaba borom xam-xam yi fi top ci ginnaw bi ñëpp neena ay góor lañ yo xamante ni ku mu man nga tan ci seeni wax لغا خامتني موتي دبوك القران نجلكو جيلكو لا تي دبووتك القران غا تكو لولو امام احمد رحمه الله تعالى واخنا ما امام احمد رحمه الله تعالى واخنا يتمني ا آه، آه، جس جس امام اوزاعي امام مالك ابو حنيفه لان يعني كله راي ñoom ñëpp dañoo am lu ñuy gisee wa huwa indi sawa wa innama alxujjatu fi l athar nee na boroom xam-xam yooyu yëpp ku ci nekk am na nooy gisee léeg-léeg mu wuuteeg sa moroom na mu gisee ab masala ci masail diiniya waaye man am na lu may gisee waaye lay wi wér lay wi wér wi nga xamee ci la ñëpp war mooy li ñu tudde athar muy lu ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa la ñépp war a wëlbatiku topp ko roy ko ahmad nee man radda xadiisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halakatin nee na képp koo xamante ni jàngal lañ ko wax nañ ko xadisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yonent bi nee na lii dañ ko digle wala dañ koo tere te loola nekk lu wér mu delloo ko bañ ko jël di doxe doxinu xelam wala ay yaakaaram wala ay foogam wala lu mu jàpp ni loola noona la نوح وحو صلى الله عليه وسلم موجه كفا دم دي دف لنين لنا كوكو دي منكي بندوب الكانة كوكو دي منكي بندوب الكانة نكسوني برام سبحانه وتعالى وحدي القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا تسليما برام أسمعنا سنجد سنجد برام سبحانه وتعالى نينه wallaahi du ngeen gëm mukk lu dul nii da ngeen attewoo li dox ci seen diggante li dox seen diggante lépp ngeen attewoo ko ci téeréb sunu borom bi subhaanahu wa taala ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa te saa soo xamante ni nee nañu leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nangam wala yàlla nee na nangam loola duñu fekk mu nekk luy am lu lay naqari ca lola ci sa xol wala ngay am lo ci bañ waaye dangay daal di jébbalu daal d'accord ànd ci àtte bi nga xamanteni mom la yàlla àtte ak ab yonentem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nag sunu borom subhanahu wa taala waxon na ci alquran ni wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin ñu leen laaj yéen yonent yi ci ñi ñu yónni woon ci yéen lan ngeen leen wax ak lu ngeen leen sant ndax lu génn waxu yàlla la waaye yéen ñi ñu yónni yonent yi tamit danañ leen laaj yonent yi ñu yónni woon ci yéen eh, nu ngeen defoon ak lañ leen andiloon mooy maada ujibtumul mursalin nan ngeen wuyoo woon yonent ya yonent yéen nan ngeen leen wuyoo woon ndax nanguloon ngeen leen wala ndax da ngeen leen a gàntuloon kon képp koo xamante ni dangaa gàntal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow xamal yaa ngi ci pindu alkande yaa ngi ci pindu toroxtaange yaa ngi ci pindu réer eh, réer goo xamante ni la lay dëpp rek mooy delluwaat ci alquran ak sunna eh, kon loolu incha allahu taala lañ doon tënk rek ci waxu al aymat al arbaa insha allahu taala suñu dars bi di ñëw nag ñu soog a door nag dugg ci wàllu julli ci boppam ndax boroom téere bi li nga xamante ni nas na ko ci téere bi eh, di ko jàngale loola moo di julli waaye amul leneen loo xamante jàngale na ko ci lu dul julli eh, nu ñu koy defee min at takbir ila taslim ak nan lañ lan lañ cay wax ak luñ ci dul wax incha allahu taala loolu moom mooy nekk suñu dars yii di ñëw ci kanam waaye dañ doon lay taaye lii rek pour ñu xam ne ni ci biir téere bi mën ngaa ñëw fekk fa wax yoo xamante ni kenn ci al aymatul arbaa di mazahib yi wuute na ak ñoom ci seeni wax ci seeni masala su danga mën a nangu kan ni kon ndéem wax ji moo wér te wax ji wuute naa kenn ci al aymatul arbaa kon danaa bàyyi wax yi kooka te jël wax ji nga xamante mooy ji wér kon mazhab ñu ñëw insha allahu taala lan mooy tax nit ki di sukkandiku ci mazhab ni man ci mazhabu malikiya ci laay xoole ci sama diine ci laay xoole sama diine كان اللي من مذهب الشافع ولا مذهب أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا على وساعي كلاي قال سردين جد سكت كل إن شاء الله تعالى وهذا يبين خل لقى خمنتني إمام أحمد رحمه الله تعالى وخلقه موي آه الحجة وإنما الحجة في الأثار لا يبير تسخدال تكوغ لا يعدو جوم lay wi wér te sax te ku ko layoo doo juum lay woowu mooy waxu yàlla ak waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jeneen wax ju waay jël di ci sukkandiku ay waxam man naa jub mën naa juumit comme ni ko boroom xam-xam yi waxe ala kulli xaal incha allahu taala ñu ngi tënk foofu kàddu yi ba yowmu jumaa bi ñëw incha allahu taala di ñaan suñu borom subhanahu taala mu defal ñu topp waaye defal ko mboolem jullit ñëpp yàlla subhanahu wa a yombalal ñu dégg alquran ak sunna waaye wërsëgal ñu man mën cee ñu mën koo jëfe waaye buñ ko jëfee ba noppi yàlla yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko te bu ñu yàlla yàlla bu ñu yàlla nattoo bàkkaaru shirk bi nga xamante ni dafay sippi ay jëfi ab jullit yàlla nañ yàlla musal ñu ci musal ci mboolem jullit yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu